القرآن بي وخليت المين يا صلاة ما ربنا دائما أما بسببه على النبي وعليه صلاة ما ربنا دائما خلق على نبي وعلى محمد fekk ndongoom. dëgg la de. ma sëkk sëriñ gaañ ñi na teg moom seeti jaana man gaaña. laa tajjaru yaa u nafsin. sëriñ Babacar Si nee na laa tajjaru. yaa u nafsin jëkkante leen jëm ca yoon ya. xusoo bi in aratul si seen borom ak liggéeyam yëg leen na Cheikh te nay ndëggoom ku sopp Cheikh na ya wa Cheikh Ahmad Tidiane Serigne Babacar ni mu koy wax boobu fukki at ak ñettalaam fukki ak ñeent Serigne Babacar si nekk ca Pondar ba di way Cheikh Tidiane afil jara imi waya Tuuba ku sopp Cheikh defal nii li tax ca Pondar ba soo xoolee bayit yi fukki ay bayit ak ñeent la di way leen na Cheikh tey ne ndagoo ca góoru yàlla yu wóor ya laa tajaru yaawu nafsin jëkkante leen jëm ca Iya. Ya leen na cheikh nay ndëkkoom ya kooru yàlla ya. wóor yàlla yëg leen ni cheikh nay ndëkkoom sa kooru yàlla Sakho Liman ak Ibrahima Sakho mii ñu suñuy sëriñ ñu ngi nii dégg ci kaw di ñaan yàlla yàlla yu ko taxawaay jóge ba bërëb bu ba ñu ngàpparu ak euh, alaaji ibrahima saaxu radiallahu taala anhu góor yàlla yu wóor yooyu yàlla yàlla yokk seen leer daa ñu seen barke ñu euh, borom kaamil nu taabali jàkk ñu la bi kon bu ko defee rek ñu ak ay rakam ñaak képp ku nekk ci biir suuf rek yàlla yàlla yokk sa leer te ñu sa barke ci bés bu tedd bii di leen su xadar ñu am ci yaakaar lool su ko nag suñu bàyyi laaj Moussa tëg ñaan ci bismillah